bakku <coughs> bon xaw ma luy bakku quoi euh, gagné nañu euh, fii lañ fi toog xaw ma c'est peut-être pas jàkkaarloo mais def nañ beneen émission ak booba man dama bokk si ñu ne woon fait de jeu moo tax ñu ñàkk contre Hollande si biir football day am fait de jeu ñaari fait de jeu euh, mu am ay concours de circonstances ñoo xamante ne favorable à Hollande mooy blessure ay joueurs mm-hmm. moom mu impacté ñu am ñaari fait tëb milieu de terrain teg ko dans le dos de la défense góol bi génn ba beneen bi c'est la même chose mu am xalaat boo xamante ne xëy na war nañ ko gis est-ce que ci lu ma gis te loolu mooy suma crainte mooy que gis naa si équipe joueur yoo xamante ne quatre-vingt-dix minutes day metti ci ñoom parce que la ñuy affaissé wu xëy na seen seuil de rendement ci équipe bi si ci axe défensif boo xamante ne balayer terrain bi essuie-glace ba pare bëgg supporter attaque bi ci kaw parce que tout simplement Neymar lu ngay wax mooy étincelle boobu amuñu ko ci attaquant yi du ñu ñëw ñaari jour yuy samp yooyu dañuy sonn te Gana Gueye ma donne l'impression qu'il a soixante-dix minutes dans les jambes au-delà c'est trop lui demander mu am yeneen joueur yoo xamante ne wax naa ko fii faw ñu yégal seen niveau de jeu dafa mel na un joueur comme Ismaïla Sarr defe naa foog mu am benn genre euh, euh, coach coach euh, coach de vie koo xamante ne dootul sax ci football rek lay wax ak moom mais feneen lay wax ak moom. Hmm. parce que boo xoolee xale ga am na taxawaay bi am na doole ga am na puissance am il a tout il a tout pour am mbappe moom ak Mbappé morphologie dafa am doole am na par contre il y a quelque chose boo xamante ne dootul football foog ñu dem xool xale bi jëm ko dimbali pour mu gën a efficace. parce que à lui seul il défonce benn day défoncer défense bu duggee si défense yi nit ñi dañuy affolé mais après mhm. il ne sait pas quoi faire finition bi ouais. te le dégagement de de de de Mendy boo ko xoolee contrôle bal et contrôle bal boobu mais n'importe quel grand attaquant au monde xam na que loolu du ko am deux fois dans le match bal bi daf koy rey bala mu xam lu muy def mais góol bi génn mais il a tout beneen affaire mooy qu'on a failli avoir un penalty que mooy niveau lu ma lu ma doon wax mooy niveau bu ngay jouer on ne répète que ce qu'on a l'habitude de faire et le niveau dans lequel on est et kooku pour man mooy loo xamante ne xëy na mooy suñu faiblesse pour Ali euh, Aliou Cissé match bu nu def contre Hollande man toog nañ fii muy waxtaan xaw ma ak Bouba bon j'étais convaincu que que dañuy jaar kawam am na sax Jules César ñu ngi koy ñëw moom jox na score bi 3 <coughs> mais man te convaincu que dañuy jaar comme comme je suis convaincu que dañuy jaar kaw kii

match boo xam ne da nga koy match du la nga gagné ko nga dem donc ils vont pas sacrifier donc ñun suñu problème yëpp léegi à mon sens euh, taxaw tey fii bon euh, dama bokkoon si ñoo xamante ni dañuy critiquer euh, Aliou Cissé et je l'assume kooku dama koy assumer man bokkuma si ñuy bàkku si lu ma moom mais pourquoi ma doon critiquer c'était sur loo xamante ne moom la indi léegi une équipe qui la responsabilité qui a un statut merci. et qui l'assume merci beaucoup et qui l'assume là et kooku man loolu loon cest à ñëw taxaw man may diw di ma xëy de dinañu xeex ba mu mat sëkk bu tegee équipe bi nga xam ne Sénégal dafa diis dafa diis maintenant en attaque il fait avec ce qu'il a euh, on a des joueurs avant-centre yoo xamante ne dañu am problème mu porter le ballon au pied balle en course da ngay gis que aayuñu si par contre mooy lu ngay wax sànq Neymar boo tegee bal bi si biir dans leur force parce que joueur bu ne si kaw say force ngay jouer donc entraîneur bi si kaw say force lay teg équipe lay teg équipe ba donc mun def tey trois trois un on a encaissé un but pourquoi ñu encaissé but bi erreur bi mooy yóbbu yóbbu kii euh, euh, Diallo si côté ba c'est donc l'autre qui n'était plus là mu yóbbu ko si côté ba Diallo qui dans le match entre le nekk ak central wala ñëwaat ci côté yi tu na plus le même réflexe loolu la mais ça veut dire que pour moi on a fait un un grand match hein, contre Hollande pour man on a fait un match tactique bu am maanaa. correct et tey coach nga gagnant parce que il met deux ñun ñëpp dañu tiit 4-2 4 ñun kan lañ ko gëj a gis man 4-2 4 defe naa ça fait 40 ans gisuma 4-2 4 ñun bu ñuy bàyyi football 4-2 4 <laughs> est-ce que am na sax c'était WM xaw ma 4-2 4 amatuloon. 4 de 4 c'est dans les années 60 70 man tey laa gis 4 de 4 dama tiit bu demee Aliou ah, lu ko dal mais il fait jouer euh, Famara qui bu lay Dia ñëpp xam nañ benn affaire ah euh, bal bu traîner devant lui il met ça au fond mais il y avant-centres yu demee noonu am naa ay avant-centres yoo xam ne bu leen laaj ñu porte bal mais bo bal bu bu traîner ñu dugal ko et le but de de mooy lu ngay wax noonu Bamba mais joueur bi bal bi lu ñëwee noonu la koy dóoree maintenant son problème Aliou Cissé mooy pour moi il a un milieu yoo xamante dañ am carton mais ma impression mooy que milieu bi dafay sonn et beneen affaire bi mooy pour dire comment euh, il est bon ñuy accompagner équipe si moment bu demee nii euh, Edouard Mendy on l'a fusillé et méchamment méchamment oui voilà un gars qu'on a fusillé méchamment. méchamment. ça ça dit dañu teg ci comme tey tey il a montré que. il s'est oui mais. comme un avant-centre qui rate dix occasions. Ouais, mais, mais, mais ça aussi erreur lay jëriñ. erreur mooy football. loolu lay jëriñ parce que man je me pose la question ba léegi.